mbokk yi ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaara di ziyaar kilifa yi daara yi yëpp ñu ngi leen nuyu di leen ziyaara jiital ci sëñ Ndiaga Mbaye ak sëñ Ibrahima Darame ndeyu daara yëpp ñu ngi leen nuyu di leen sant seen mobilisation mobilisation bi ñu def am na solo waxatuma laak bañ ñëwee fee daanu yiñ fa daanu jooyee fa soxna bu jooy yooyu yëpp ñu ngi ko doon gis ñu ngi leen di ñaanal bu baax li ñuy jàppalee xale yi li ñu leen dimbalee yëpp gis nañ ko ba ñu gañee ba léegi ñu ngi leen di topp bu ñu gañee première euh, phase bi fii ci Louga la leen ndey daara yi topp ba naga ni bàyyeeguñu ñu demaat deuxième euh, phase bi ñu ndey daara yi topp ci boobu ba léegi seen seen i xaalis seen dërëm lañu ñu xale yi taxawu leen dëgg-dëgg taxawu kon ñoom i ndey daara yi yàlla na leen suñu borom taxawu mënuñu leen a fay waaye yàlla mi nga xam ne am na fayam yàlla na leen fay ñoom ñëpp keroog bi soxna Xadi daa jàngee dañoo daanu ñoom ñëpp di jooy man dama leen a mujjoon a ñeewante kon nag sant nañ leen bu baax xale yi ñaanal nañ leen lool man mi ñaanal naa leen ndax gis naa seen taxawaay bu baax jërëjeen jëf yal na leen yàlla fay jërëjeen jëf soxna Zeynab yow nag mérité ngeen am ndam li mérité ngeen ko lool salaamaaleykum wa rahmatulah maa ngi sant yàlla di julli ci yenent bi sallallahu alayhi wa sallam bu baax a baax di ko ñaanal yàlla gudd fan ak wér ci barki alxuraan maa ngi sant nag mbokk julli